jërë ngeen jëf mbokk internet Sénégal 7 TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a di leen jox seen wàccuwaay di kontaan bu baax a baax ci ndam li nga xamante ni Sénégal am na ko niki démb mu doxoon ci diggante ak suñu mbokk yooyu nga xamante ni ñoom ñooy Gambia ko wax Sénégal nag xam ne Sénégal ak Gambie daanaka benn dëkk la tey ñu sekk waxtaan ak ki nga xamante ne. yaakaar naa àdduna wërngal këpp ràññee nañ ko ci bëgg-bëggam Sénégal waaye aussi taxawaay bi nga xamante ni moom la si am ba mu mat sëkk donc dama koy nuyu muy Paco bu ko defee ñu tàmbali waxtaan Paco nuyu naa la. waa la dama laa may nuyoo dafa am loo xam ne toujours moom laay ubbee. Mhm. Sénégal rek fondamentalement carrément exactement légalement absolument cordialement honorablement lalla euh. Sénégal set rek. Ah, ah, voilà c'est Paco la masko des équipes nationales du Sénégal lalla tey damay am mbégte ginnaaw bi nga xamee ne dugg nañ ci compétition bi ci bisimilahi rahmaani rahim yàlla defal ñu ñu génn ci démb ci alhamdulilahi rabbil alamin et may félicité équipe nationale bu Sénégal waaye di wax ne tamit suñu mbokk Gambien yi vraiment ñu ngi leen di Euh, support tamit di leen wax ne ñoo bokk réew ñoo bokk lépp waaye sport la compétition bu tàmbalee wax dëgg-dëgg lu ñu bokk-bokk ku nekk daa am sa raaya nga dem pour défendre ma kon nag démérité wu leen di courage euh, am na yeneen match seen kanam yal na leen si yàlla defal ndam vraiment Gambie ak Sénégal benn la et vraiment may remercier waat bu baax di félicité le coach Alioune Cissé di félicité le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal Kalidou Koulibaly vraiment di wax ne daal ni ñu duggee ci compétition bi am na solo trop trop trop parce que nag vraiment am nañ ndam waaye ak manière bi gañe gañe nañ trois 0 trois 0 nag nga duggee ko ci compétition Coupe d'Afrique loolu moom vraiment xéewal la waaye ñuy wax ne chapeau à Aline Cissé parce que à chaque fois vraiment dinay am ay critiques mais toujours mu ngi parvenir di def vraiment li nga xam ne moom la war a def démb xool leen classement bi mu def ah kan moo dugal doublé kooku mooy Lamine kamara te da ko titularisé muy xale bu ndaw mu ñëw premier kaanam premier titularisation am mu dugal deux bi Pape Gueye nekk xale nekkoon ci ay situation yàggul et nga gis mu osé dugal ko mu ubbi premier biitu Sénégal ci kaan bi kon saa montre que ne Alioune am na lu nekk ci moom loolu tamit na ko nit ñi nangul parce que nit da ngay nangu ndogal yàlla mooy jox nit ki mooy dogal ci moom à tout moment saa yu ko dogalee doomu aadama bi vraiment da ko war a nangu loolu daal moom laa xam ne maa ngi koy ubbee di ñaanal yàlla sénégalais yëpp nii ñu dugge ci compétition bi ñu koy def match par match match bu ñëw yàlla may ñu ci ndam ñu gañe ko ba victoire final def ko Yamoussoukro ba jël premier jóge fa qualifié dem Abidjan joué fa suñu yeneen match bu ci nekk ñu gagné ko yàlla may ñu ndam. parce que match yi gën a am importance mooy yàlla nañu yàlla yóbbu Abidjan sum demee bu Abidjan yàlla nañu yàlla defal ba match buñ fa joué ñu gagné ko mm. ndax loolu mooy déterminer. liy tax ubbi ñëw d'accord c'est important euh, Paco mais gis nañu démb. waaw euh, stade bi euh, doon na riir. wallaay ci côté supporter yi moo xam lébu gi moo xam douzième gaynde donte naam sax yow dem a gisaguñ la. wallaay mais démb bi nga déggee stade bi di riir ak tëgg beeg yëpp lan nga yëg. exactement ci côté supporter yi. voilà foofu damay féliciter le douzième gaynde bi nga xam ne actuellement ñu ngi foofu. nga xam ne aussi Sénégal moo leen tax a dem drapeau bi benn la vert jaune rouge la ñun ñëpp ñoo ko bokk li ñëpp bokk kenn du ko xëccoo tey jii ah yàlla def na démb suñu deful woon ambiance bi ñu war a def kon joueurs yi du ñu nekk ci état bi ñu nekk ba mën a gagné kon tey dafa am ñu nekk seen ginnaaw jox leen ambiance supporter leen loolu nag ñi ci jiwtu mooy douzième gaynde tegu ci ale tegu ci lébu gi kon defe naa ne ak tamitam supporteru waa géejawaay yi ndax gis naa tamitam ku mel ni ñoom jaw euh, këccëb ñoom ñëpp sis naa si si TikTok bi mhm. vraiment ñu def fa ambiance bu extraordinaire loolu mooy wane ne bu lépp jàllee ñun ñëpp ñooy retrouvé wu ñun ñooy retrouvé wu pour lan pour ndamal Sénégal parce que loolu moo ñu ñor man nag loolu su ma sañoon mu fekk ma fa. mais nit day am loo bëgg. am lu yàlla di foofu laa bëggoon taxaw tuuti parce que ku ne ku wax Paco wax Sénégal te jamono ji ñuy wax ak yow heure bi waroon na la fekk déjà nga dem Abidjan ba commencé def sa liggéey comme ni nga ko daan defee at euh, at bu jot. voilà loolu aussi boo gisee mu am mu tënku ba léegi loo lu yëngu li ko yëngal la ko ëpp doole dama ànd ak samay nawle ñu nekk ci biir douzième gaynde lu mat ñaar fukki at maanaam muy commission culturelle bu douzième gaynde sonorité boo leen mos a dégg douzième gaynde di ko tëgg ñooñ ñoo ko doon diriger di ko tëgg ci stade yi Russie 2018 ñooñu ñoo tëgg ba président Macky Sall kontaan ñooñu ñoo tëgg ba ñu jël deuxième meilleur supporter du monde coupe d'Afrique des nations 2022 ñooñu ñoo tëgg ba ñu jël coupe bi kon ñooñu bu ñu jekkee jekki suñu président bi ñu nekkal daa di wane ne ñun ñii yëpp kat génne nañu ci douzième gaynde ci loo xam ne vraiment ma dama jàpp ne teguwul fa mu war a tegu e loolu moo andi man tamit ma ne ñii ma doon àndal du ngor du jom ci man man ma jékki-jékki mën a demal sama bopp am pouvoiru dem mën a defal sama bopp lu bari te doon laa ko mos di defee ndax man def naa ñeent fukki tukki ak juróom ñaar juróom la ma ci douzième gaynde mos a yóbbu li des yëpp man maa yóbbu sama bopp ndax li ma gëm mooy supporter un supporter supporter amul fenn d'abord yow da ngay def don de soi maanaam yow supporter bi da ngay xool ne lii ngay def da koo gëm bëgg ko waroo cee xaar kenn mhm. d'abord yow yaa war a njëkk a doon sa bayeeru bokk wuti ñeneen ñu la jàppale pour que nga mën di ko def correctement di ko def légalement loolu moo andi man tamitam et ma am ci gis-gis boobu tey jii nag deme demee na noonu am na tak ay nit yu baax ñoo xam ne aussi xam nañ man li may jëriñ ci réew mi ku mel ni la ministre Mansour Faye di sama maire nekk maireu Saint-Louis waaye nekk ministre des transport bi lii amee bi ma ko gisee mu ngi ci taxaw taxawaay bu mucc ayib ak ki nga xam ne moo di Sophie jàlloo di directrice 3FPT ñooñu aussi ñoom ñoo ma taxaw Mansour am na ay billets yoo xam ne moom ci boppam poosam la dugal loxoom jënd billets yi jox am jox ñu pour ñu am même benn ndombre lu mu ndaw ndaw nañ fa dem teewe ko mm-hmm. yemul ci loolu waaye dafa woo ki nga xam ne moo di directeur bu LONASE mhm. muy Dura Balde mhm. daa di ma koy paas ci téléphone moom ministre bi wax ak moom ne ko dama bëgg nga jàppale ñii parce que ñii wax dëgg fa yàlla mérité nañ dem foofu fekke ji loolu mhm. directeur LONASE nag moom aussi ba may ko jotee nee na ma dina ci taxaw dina si jàpp loolu aussi bokk na ci ni ñu fi téye kon bëgguma encore une fois dem bàyyi fi ñi nga xam ne depuis vingt ans man wala ñoom vingt ans ñu ngi fi man def naa fi lu tuuti tuuti dix ans fi laa leen fekk. Mhm. sama ngor mayuma ma bàyyi leen fi. loolu moo ma fi téye ba léegi. waaye am nan yaakaar bu baax a baax ne ajjuma mat si Sénégal Gam euh, euh, Cameroun yàlla mën nañu faa fekkale même bu dee ñaari nit même bu dee ñetti nit même bu dee juróomi nit. même bu dee fukki nit. Mhm. incha allah ñaan nan yàlla. ñu dem fekke ji ko fekke ji ko nag mooy sunu demee douzième gaynde ba fa ne sunu yaatalee dugal ñu ci seen biir ñu dugg bu ñu beree tamit danañ taxaw ci biir stade bi fépp fu nu mën a supporter boo xam ne suñu réew rek moo nu tax a jóg dinañ ko def waaye ñun encore une fois mosunoo tooñ kenn te yàlla xam na ne tooñuñu kenn barke Seydina Mohamed Makka laa jóge Kalidou Koulibaly invité ma fa ça fait pas deux mois ca Kaaba ga laa toog daa ñaan pour ndamal Sénégal daa di ñaan pour coupe mën naa dóor si kaamil foofu ma jóge mosuñoo tooñ kenn te ñu kenn encore li ñu ñor mooy suñu Sénégal la ñu gëm mhm. suñu Sénégal la ñu bëgg suñu Sénégal la ñuy topp topp ñu leneen ñun du affaire politicien ñun affaire nation la Et surtout parce que sport aussi il faut ñu xam ne ak politique ça n'a rien à voir. ça n'a ñu def la part des choses. président Abdou Diouf moom moo fi fekk douzième gaynde tey Serigne mbay Thiam mi nga xam ne moo créé woon douzième gaynde ministre de la république la. Hmm. loolu rek wone na lépp maanaam douzième gaynde affaire u la parce que da ngay topp sa nation sa drapeau sa hymne national. ci li nga xam ne benn bénévolat la kenn fayu la ci kon loolu benn bénévolat nag amul lenn loo ci mën a réclamer loo xam ne c'est un droit légitime parce que yow yaa ne benn bénévolat ngay def kon am na loo xam ne boo koy def lu la ci fekk rek da ngay xam ne lii moo ma ci fekk waaye du da ngay wax ne par force lii laa ci am kon wax dëgg fa yàlla récépissé ba mu amee euh, di douze du douzième gaynde bu ñu demee ba président Ablaye Wade ñëw moom tamitam fekkoon fi Abdou Diouf mu jël douzième gaynde teg ko fu kawe jox na ko fi avion jox na ko fi cinquante millions loolu wone na ne kon patrie bi la xool ndax bu xoolul woon patrie bi kon du wax ak douzième gaynde mais loolu yemul foofu président Macky Sall ñëw bi mu ñëwee nan la def dafa ñëw xam ne douzième gaynde gii patrie lay topp verte jaune rouge fu nekk ñuy topp équipe nationale yi mu defal douzième gaynde lu mën sa defal kenn ci àdduna ndax moom président bi waxuma la dara waaye tey jii euh, lépp luy bégal sénégalais ci sport maanaam da ko def ba sénégalais yi amul benn président bu ko fi mos a def boo demee jam ñaajo muy muy stade Ablaye Wade boo demee tey fi nga xam ne mooy annexe jam ñaajo boo demee Dakar Arena soo demee fi nga xam ne moo di làmb ji kon sportif sénégalais yi dañoo gis seen bopp ci ayu président Macky sàll yemul foofu waaye tey jii xoolal ma kan mooy président bi njëkk a jël coupe d'Afrique des nations président bi nga xam ne wax dëgg fa yàlla aussi tey jii moom jig na Sénégal ndax nag dafa def deux mandats nekk gentleman ne day bàyyee réew mi keneen koo xam ne mën na koo diriger xoolal loolu kon ñun suñu demee ba gis ne dañoo nekk ak suñu président mu def seize ans def quatre ans de mandat ñuy décrier loolu loolu andil ñu problème bii kon moom bu amoon jàngat ci président Macky Sall rek wax dëgg fa yàlla kon du ñu am problème bi d'accord léegi nag li may wax foofu mooy président Macky Sall douzième gaynde quatre vingt lañ ko xamoon euh, 2012 président Macky Sall nekk président de la république muy chiffre 2 2022 président Macky Sall pour la premier fois un sénégalais nekk président jël coupe d'Afrique des nations yaa ngi dégg. Mhm. deux ans après Sénégal war a dem coupe d'Afrique fële ci Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire moo ko fi jëlee woon en 2012 kon ñun Sénégal bu ñu delloo fële ci Côte d'Ivoire. li nga xam ne moom la ñuy ñaan yàlla mooy yàlla defal ñu ñu jële coupe ba foofa muy deuxième mandat bi déterminé deuxième mandat wu président Macky Sall bi. d'accord muy deux mandats yi di deuxième trophée yàlla nañu ko yàlla defal. ñu jële trophée bi foofu indil ko Sénégal. jox ko président Macky Sall mu yóbbu ko mu doon deuxième mandat woo. mais fi ma bëgg a jeexalee ak yow ah Paco gis nañu ne parfois. Mhm. équipe bi si façon bi ngeen di supporter moo xam ci way yi. Mhm. parfois bu équipe bi xawee yéex a dugal am na façon euh, euh, connexion boo xam ne mi ngi daw entre yéen ñi supporter di way ak équipe bi dafa mel ni souvent boo leen ko defee rek ñoom dañuy réagir automatiquement. waaw loolu. loolu dal nañu ci match bi passé ndax euh, match Sénégal ak euh, Niger mhm. ñun ak commission culturelle bi may wax dañoo nekkoon ci ginnaaw camp yi comme ultra yi nu ñuy def mhm. les ultra toujours ci ginnaaw camp la nekk parce que ñun nag bu ñu parcourir monde bi def ay stades yu bari def naa stade yi gën a mag stade Napoli nga xam ne maro Maradona toj na ko dem naa fa yëngal stade bi dem naa Vélodrome Marseille ku xam Marseille xam ne ñoo ñu les supporters les supporters ñooy dugal bii yi foofu. Mhm. def naa ko def naa récemment Al ak Kalidou Koulibaly nga xam ne daf ma yóbbu woon Napoli ma yëngal ko ma dem man dong yàlla dogal man kese. ma dem stade bu alxilaal yëngal stade bi kon loolu nga xam ne mu ngi ci ñun loolu buñ ko andilee sénégalais yi defe naa ne war nañoo mën a apporter dara te loolu moo ñu dal bii passé match bi bi muy des presque une minute de la fin ci lañ ci laa yéeg si baar bi ñu ñu ñu def suñu boobu nga xam ne mooy tamparampatam tamparampatam tamparampatam jing jing jing kooku ki ko créé mooy président commission culturelle bi ñu fi bàyyi nii biñ ko tàccoondoo à une minute corner am ñu tàccoondoo ko stade bi topp ñu ci ci la bit bi dugg mm-hmm. kon loolu mooy wane ne un supporter dafa baax ci équipe mm-hmm. beneen bi mooy soo gisee si joueurs yi di ma adopté di ma bëgg joueur dafay nekk si benn état boo xam ne des fois dina nekk ci parce que ñoom toujours seen lépp concentration la maanaam dañuy bëgg des fois koo xam ne da leen di soulager. Mhm. ci ay humour da leen di soulager ci maanaam yenn wax yu leen di reetaanloo yu leen di yu leen di wàcce léegi nag loolu peut-être man fu ma amee occasion jege leen dama koy faral di def. loolu moo tax ñoom ci seen bopp dañ ma adopté parce que dañuy bugg xam nga nit bu demee bu am xaalis nit ñi dafa am nuñ koy gisee nit ñi daa am fu fuñ koy teg. ba yenn yi sax duñ ko ko bëgg a wax duñ ko ko bëgg a defee duñ ko ko dañuy ñëw rek ñenn ñi pour daw photo wu nangam nangam dañ koy gën a dugal ci benn pression. Mhm. mais yow bu fekkee ne da ñëw am benn humour boo def ak moom kaf ak moom foo ak moom dalay lay adopté. Mhm. loolu moo indi tey joueurs yi bëgg ma loolu nag mbiru yàlla la. Mhm. nit ci loo ne rek am na nit booy boo ko téyal. effectivement un jour viendra da nga koy bàyyi. maa ngi delloo njukkal. Mhm. sama papa Abdoulaye Thiam. moom moo ko nekkoon mascotte. yal na ak Ndiaye drapeau. Mhm. yal na leen yàlla yërëm to xare leen àjjana. Mhm. vraiment may waxaat encore une fois l'union des cœurs que sénégalais yëpp nañ jàpp ne sunu Sénégal benn la mënuñu kenn mënul xar bopp yi ñaar. ndax tey ji li ñëpp bokk dañ koy pencoo. loolu rek mooy li nga xam ne mooy suñu demande. loolu mooy suñu bëgg-bëgg. te lépp lu ñuy def nag ci dignité lañ koy def ak ci ngor parce que doomu aadama bi suñ génnee ci yow dignité génne ci yow ngor vraiment bu boobaa nekkatoo li nga war a doon ci lu mënti ne da ngaa war a jiital ngor ak dignité tey jii ñu bari ñu may gis defe na jeexaluma dara waaye yàlla xam na ne ya lu yàlla xam rek doy na. kon nag sant yàlla. sutura mooy lépp. yal na ñu yàlla defal sutura. amiin yal na yàlla defal douzième gaynde ña nekk fële ak ñii nga xam ne bëgg nañoo dem yàlla na defal yàlla defal ñëpp jàmm ndax jàmm rek moo ñu ñor dara ñoruñu ñun Sénégal nu mu jëlee Coupe d'Afrique Sénégal nu mu dekkee ci kaw loolu rek moo ñu ñor. bañ nañ ko ba suñu devise Sénégal rek la. Mm-hmm. te defe naa Sénégal rek wër na àdduna bi. Mm-hmm. vingt cinq millions de personnes utilisé nañ ko te ginnaaw yàlla loolu ci sama man mii ci sama gémmiñ gii la ko yàlla dogale ma koy wax ba ñëpp jël ko tey mu wër àdduna bi gis ngeen ne man fu ma nekk ba démb moo ci mujj demaguma waaye Canal Plus seen seen seen plateau man mii maa fa nekk man maa fa wax to lépp fii laa ko defee kon nga xam ne euh, boo demee ba média international yi di la wër yow sa waa réew say doomu réew war nañ laa mën a aar yiir la jàppale la taxawu la samp la loolu c'est le minimum. Mhm. parce que da ngay dem ci yeneen réew ñu lay safoo di la tiitaroo di la bëggee di la photo di def lu ne pour yow kon yow sa waa réew war nañoo mën a doon ñi nga xam ne ñooy doon sa sipport jàppale la. jaajëf et eh, ko ñu ngi ciy def ndax fu ma tourné ñëpp a ngi vraiment ñëpp a ngi ciy jàpp ñu may ñaanal Paco looy def fii ba léegi mais nit toujours daa am lu muy bëgg am lu yàlla dogal mm. Sénégal. rek lal la. jaajëf amoon nañu mbégte ak contentement dalal la euh, ma bàyyi la rek nga tëj benn yoon euh, tàggatoog internautes yi xam naa ni euh, dinañ la xaar Abidjan incha allah. voilà li may tëjee daal mooy ñu ngi nii di demander bon volonté yëpp sénégalais yi sponsors yi tey imaginez-vous man ma personne bi gën a ndaw tey fii may wax ak yéen France vingt 24. ñu ngi ñu ngi def tout pour nu ma ñëwee Canal Plus ñu ngi def tout pour ñu ma ñëwee et presse international bi yëpp ñu ngi xaar nu ma ñëwee presse Sénégal bi waxi noppi léegi nit ku mel nii te mënul am benn sponsor sénégalais bu ko ñëw taxawu jàppale ko <laughs> tey jàpp naa ne tey bu ñu sponsor yi jàppoon sponsorisé ñu dong. Mhm. kon état ci boppam sax du am problème sax pour yóbbu ñu. ça veut dire que tey. tey bon volonté yi war na ñoo mën a jàppale pour que ñun ñu mën a bokk ci ñi nga xam ne dañoo war a dem foofu ci Coupe d'Afrique bi Lalla lii may wax nag bul ko dàgg ndax da di jël a jël bu géex waaye bu ngeen di génne tuuti ngeen di génne kon nag loolu moom dimbale leen ma ngir yàlla rek na dina dugg <laughs> ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax may jaajëfal Hamidou mi jàppoon euh, sur la partie technique donc nii lay demee saa su nekk en route vers la kaan la ñu wax euh, CAN Côte d'Ivoire 2024 démb gis ngeen spécial plateau bi nga xam ne euh, Sénégal set defal na leen ko donc topp leen ñu fii ba CAN bi di jeex incha allah ah, dinañ leen wan lépp lu xew fa la ci Abidjan mais aussi dinañ leen gunge fi nga xamante eh, ni moom mooy Sénégal sama sama. jakarta maan yi waaw nañ ñëw nga tëj benn yoon parce que dama yëngal. fii laay jëlee toujours sama jakarta bu may may dem. kon na dama bëgg nga yëngal très rapidement moo tax man ma bëgg a tëj euh, rek bàyyi la nga jeexal. donc di leen jox rendez-vous waa très bientôt jërë ngeen jëf ma bàyyi la Paco. nga yëngal ak sa gars yi. voilà ma carrément exactement légalement absolument cordialement maa ngi nii ak sama chauffeur yi nag. mooy jakarta men yi. su may dem ci Dakar bi fu may dem. ñoo may yóbbu fii mooy samay garage fii mooy samay chauffeur Sénégal rek Sénégal rek Sénégal rek Sénégal Jakarta Jakarta fondamentalement rek